bismillahi irrahmani irrahim alhamdulilahi rabilalamin wa sala allahu wasallama wa baraka ala nabiyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa xadimih wa man daa bi daawatihi wa saara ala hadiyihi ila yawm ddin assalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu mbokki jullit yi ginnaaw bu nu sante yàlla sunu borom julli ci sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam ñu ngi leen di nuyu di leen ziyaara ci bis bi di leen ndokkeel tey jii di bisu ajjuma di fukki fan ak ñeent ci weeru safar ci atum junni ak ñeent téeméer ak ñeent fukk ak ñeent ñu bàyyi ko ci xew-xew bu tedd xew-xew bu rëy xew-xew bu màgg te moo di santale sëriñ bi boroomam sant nag yàlla moo ko santaane moo ko digle yàlla dafa bëgg koy sant yàlla defa day jëppi ki nga xam ne day fakk jëf ndax ku dul sant rek danga fakk jëf moo tax yàlla santaane sant wax ne washkuru li wala takfuruun mooy dee leen sant li ma leen jëfal te bu leen fakk jëf waxaat ne an ishkur lii wali walidayk nang ma santal li ma la defal te itam na nga sant say wayjur ndax liñ la defal waxaat ne balillaaha faabud wa kum min ash-shakirin na jaamu yàlla te na bokk ci way sante kon gis ngeen ne sant foo dem ci alquranul karim da ngay da gis ne sunu boroom moo ko digle te ni mu bëggee koy sant noon lay jéppee kii fakk jëf ndax ku santul rek da ngaa xarab da ngaa fakk jëf moo tax moo waxaat ci alquran ne in takfuru fa inna allaha ganiyun ankum wala yarda li ibadihi al kufra wa in tashkuru yardahu lakum nee na su ngeen fakkee jëf su ngeen goree dee yàlla moom amul soxla ci yéen waaye ngore di googu googi ngeen ngore day neexul yàlla yàlla li ko neex mooy ngeen sant wala yarda li ibadihi al kufra wa in tashkuru yardahu lakum doomu aadama nag xéewali yàlla yi bu ca dee xalaat di ko bàyyi xel dana xam ne bu fekkee am na fu mu tàmbalee itam kenn xamul fan la yem doomu teraanga sunu borom moo ko wër moo ko séq ba ne put ci suuf génn ci biirum ndeyam lu ko jiitu sax ci biirum ndeyam la xéewale yàlla yi tàmbali de ko fa fekk ndax euh, way juram wi àndak moom ci biiram di las-lasi euh, taniwu ko lu bare mënalu ko dara waaye ka nga xam ne moo koy fekk ci biir ba di ko saytu yoru ko fa yiir ko fa wattu ko fa kooku mooy sunu boroom su juddoo nag ma wax su juddoo ñëw ci àdduna léppam xéewali sunu borom la waaye dafa mel ni nit ñi duñu seetlu xéewali yàlla yi wala bu ñu ko seetloo itam dañ koy fakk yàlla sax wax na ko nee na sa borom day ku bari ngëneel la ci nit ñi maanaam ak mbaaxam ay xéewalam ci nit ñi lu bari la waaye lu bari ci nit ñi duñu sant wa inna rabbaka la du fadlin ala annaasi walakinna aktharahum la yashkurun li ëpp ci nit ñi duñu sant moom sax dem na ba ne ñu néew a ci nit ñi ñooy sant sant yàlla dëgg-dëgg sant ñu néew a koy def wa qalilu min ibadiya shakur kon nag doomu aadama li ko yàlla defal ak fi yàlla jaar ak moom soo koy xalaat di ko bàyyi xel saa su ne war nay sant sunu borom moo tax sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam coono bi mu daan daj ci jaamu yàlla di taxaw guddi bàyyi tànkam di newi soxna aïchatu ne ko coono bii ngay daj ana lum la ci fekke lii ngay teg sa bopp ana lum la ci fekke yow amoo bakkaar sunu borom topp la dara kon looy sonn mu ne ko loolu yi ma sama borom defal nag moo tax ma war a sonn ci de ko sant inna fatahnaa laka fathan mubiina liyaghfira laka allahu ma taqaddama min dambika wa ma ta'akhkhar wa yutimma ni'matahu alayk wa yahdiyaka siratan mustaqima aziza li ko yàlla defal te kenn amu ko nee na moo tax mu war a sant yàlla moo tax mu tont soxna Aïchatu ne ko afala akunu shakura ne ko lii ma yàlla defal te defalu ko kenn looloo tax ma war a sonn coono boo xam ne kenn du ko sonn ngir lan ngir sante ko sunu boroom kon nit ki bu seetee ci boppam seet ci li ko wër seet ci ñëpp day gis rek ne yàlla moo yayoo cant ndax day di gis ngëneelul yàlla ak xéewali yàlla yi ci boppam waaye da koy gis tam ci keneen ku dul moom moom la sëriñ bi di wax naan araytani fadlaka fi nafsi wa fi siwaaya yaa man saana an mu xawwifi yow yàlla euh, su ma xoolee sama bopp gis jeexiiti say ngëneel ak say xéewal su ma xoolee ci bindee fi itam gis jeexiiti say ngëneel ak say xéewal gannaaw nag ñi sant dañoo néew li ëpp ci nañu duñu sant wax naa ko léegi yàlla ko wax wa inna rabbaka la du fadlin ala annaas walakin aktharahum la yashkuruun ganaaw nag ñiy sant dañoo néew cheikhul xadim bëgg ñu néew ñooñee ñun ñu bokk ca lim bu néew boobee nga xam ne ñoom ñu ngi sant yàlla daf ñoo yéene ñun ñu bokk ca moo tax moo wax ne yow yàlla yaa ma tàggaleeg ñiy fakk jëf ak a xarab yaa ma booleeg ñi nga xam ne ñooy sant farraqta bayniya wa bayna alkafirin jamaata bayniya wa bayna shakirin mbokki jullit yi sunu borom am na juróom ñoo xam ne lañu bëgg mën na leen koo defal waaye ci coobareem la ko aj waaye kii sant moom la mu bëgg da ko koy defal te aju ko ci coobareem mën na mën na cee tudd nit ki yàlla mën na koo jox xéewal gu yaatu gu ñëpp xaj waaye loola yàlla da ko aj ci coobareem mu ne wa in xiftum aylatan fa sawfa yugnikum allahu min fadlihi inchaa bu ngeen ragalee ñàkk sunu borom mën na leen jox lu yaatu lu ñu bari xaj waaye ci coobareem la ko aj bu dee wërsëg mu ne yàlla dana wërsëgal ku ko soob te du seet sax lam koy jox du ko wàññi waaye ci coobareem la ko aj mu ne inna allaha yarzuqu man yashaau bi xeyri xisaab bu dee nangu ñaan mu ne yàlla de su ngeen ko ñaanee euh, la ngeen bëgg man na leen koo defaral ci coobareem ci coobareem la wax mu ne bal iyaahu tad'uuna fa yakshifu ma tad'uuna ilayhi inchaa bu dee yàlla sàng la sutura yàlla tam nee na danaa sàng sutura ku ma soob ba tey gis nga ci coobare la ko aj wa yaxfiru ma duna dalika liman yasha bu bu dee ci njëggal yàlla nee na danaa jéggal ba tey ku ma soob ba tey ku ma soob la wax de mu ne summa yatubu allahu min baadi dalika ala man yasha gis ngeen juróom ñi ma tudd kenn ku ci nekk lam bëgg suñ borom mën na ko koo defal waaye ci coobareem la ko aj waaye kii sant nag lam koy defal aju ko ci coobare dafa wax rek ne bir na ma ne bu ngeen santee ma dolli leen néewul ci sama coobare dana la in shakartum la azidannakum wóor na ma ne bir na ma ne su ngeen santee ma dolli leen kon nag kii sant kii sant xelam war naa dal ndax juróom ñee da ko aj ci coobareem waaye kii sant moom aju ko ci coobareem cant nag mbokk yi mooy li yàlla def nga di ko bàyyi xel nga di ko yëg na ko yëg ci sab xol soo ko day yëg ci sab xol day tax nga gën a bëgg yàlla soo ko day yëg ci sab xol day tax jaamu gi ngay jaamu yàlla ako si néew danga ko sellal ndax dangay xam ne kenn fekk ko ci yow lépp mooma ki nga xam ne na kenn fekk ko ci yow sa lépp mooma da nga koo war a sopp te itam li nga koy jaamu da koo war a sellal kon cant cib xol lay tàmbalee bu ci jógee nag aw làmmiñ day sant mooy di ko wax ñëpp di ko dégg boo ci jógee nag say cër di ko jëf ñëpp di ko gis kon cant dana nekk ci xol muy sa diggante ak sa borom dana nekk ci làmmiñ ñëpp di ko dégg dana nekk ci ay cër nga di ko jëf ñëpp di ko gis moo tax sëriñ bi wax ne yow yàlla may ma ma saxoo sant la ci sama xol ak sama ruu ak sama yaram ba ba may tàbbi àjjana habli dawaama shukri lil jinaani bi ruuxi wal jasadi wal janaani wax na ne damay sant yàlla te du ma ci jóg mukk te danaa ko sant ci sama xol waaye danaa danaa ko sant it ci sama làmmiñ ndax cantu xol gi yoonu kenn nekku ca digganteem ak boroom la waaye cantu làmmiñ wi ñëpp koy dégg mu ne ashkuruhu wala azalu ashkuru wa bi fuaadi wa lisaani adkuru bokki jullit yi doomu aadama mën na am lu mu bëgg di ko yootu di ko sàkko fu ne mu jëm fa fu ne mu bay fa boppam ba bunt bu ne mu di ko fëgg waaye su demee ma ci biir day xam ne kii faj soxla yi kenn la te mooy sunu borom mu dal di nag dellu ci sunu borom ndax ku dem ba xamatoo fa nga jëm da ngay dellu fa nga jóge woon mu dellu ci yàlla ne ko la in aataytana saalihan la nakunanna min ash-shakirin yow sunu borom day lii may ko di ko yóotu fu ne jaar naa fa bunt bu ne fëgg naa ko fu ne bay naa fa sama bopp xam naa ne yaa ko mën a faj soo ma fajalee tey danaa la sant waaye su ko ko yàlla fajalee ñu bari ci doomu aadama yi dañuy fecci kóllëre ga dañuy xarab dañuy fakk jëf duñu sant yàlla moo tax yàlla wax ne fa lama aataahuma saalihan jaala lahu shurakaa fi ma aataahuma nit ki lam doon yootu di ko sàkku di ca sonn ba ko ko yàlla defalee mu wut wutal nag yàlla ndend ak moroom kon santul yàlla kon ma ngay xarab kon ma ngay fakk jëf kooku mooy ki nga xam ne dafa am lu muy sàkku di ko yóotu bëgg cee jot waaye am na keneen koo xam ne nag dafa am lu mu bëgg a tàggool lu ko naqare lu ko metti loo xam ne bu sañoon tàggoo ak moom nekki wéradi nekki uh, aw naqar niki euh, nga ne foo xam ne bëggoo fa nekk am na feneen fu la ko gënal nga yor loo xam ne bëggoo ko yor doyu nga bëgg leneen loo yor moom daal bëgg nga tàggoog li nga nekk am lu ko gën nga naan yàlla soo ma génnee ci lii de danaa sant la in anjaytana min haadihi lanakunanna min shakirin yàlla nag daal la cay jële yóbbu la ca la nga bëggoon bu dee tawat mu wéral la bu dee ñàkk mu saafara ko bu dee looy yootu ni ke ndombok tànk mu jox la ko moom daal la nga nekkoon bëgg nga caa jóge jóge nga ci dem nga ci lu ko gën waaye lu bari ci nit ñi su boobaa nag dañuy fecc ko lëre dañuy fàtte njëkk li leen yàlla defal dañuy xarab dañuy fakk jëf moo tax yàlla wax ne fa lamma an jaahum ida hum yabguuna fi l ardi bi gayril xaq bari na koo xam ne la mu nekkoon bëgg caa génn ba ko ci yàlla génnee day fàtte yàlla day fecc kóllëre day xarab day bew mbokk yi ñépp xam nañu ne cheikh na ahmadul xadim dañu ko tooñ ba mu feeñee jamono ba ni mu làqoo ci jamono lépp ci ay coono la ko nekk coono yoo xam ne dañu ko tooñ waaye coono yi li muy metti metti metti da ko dékku da ko muñ muñ ko rafet moom de eh, ak muñam ak rafetalam kenn mënu ko xalaat ndax nekk ak sam noon te su ñaawee nga rafetal lu tax muy rafetal yàlla moo ne hal jazaa'ul ihsaani illa al ihsaan ku def lu rafet yàlla fay la lu rafet te fayuk yàlla lay sàkku nga nekk ak say noon ñu lay tooñ nga di leen jéggal lu tax mu de muy jéggale yàlla moo ne ku jéggale te jëlale sunu borom moo lay fay fa man afa wa aslaha fa ajruhu ala yooyu moo taxoon lañu koy def ak lañu koy wax ak la muy daj amu ca soxla lépp da koo muñ bi mu demee ba ñibbisi wax ne jéggal na samay noon ñun nag li ñu tàmmoon mooy nit bu la tooñee soo ko jéggalee moom mi nga jéggal moo war a sant nit tooñee nga jéggal ko moom mi nga jéggal moo la war a sant waaye sëriñ bi moom ndax yàlla moo wax ne suma summa afawna ankum min baadi dalika laallakum tashkurun buñ la jéggalee danga war a sant ndax njéggal gi ñu la jéggal waaye sëriñ bi moom moo jéggale ba noppi nag di sant nag dañu ko tooñ muy jéggale ba noppi nag di sant te gis ngeen jéggale gii mu jéggale moo waral réew mi dal moo waral réew mi am jàmm ndax ba mu ñibbisee bu fekkoon te ne dafa wax euh, ñi aju ci moom ne leen bu leen bàyyi mu sedd tooñ gii ñu ma tooñ tumurankil gii ñu tekk ak lii ñu def buleen ko muñ lu man na ko ci jëf su boobaa xeexoo euh, mooy am ci réew mi te kon réew mi dana takk ni réew yëpp takk waaye ba mu ñëwee ne jéggale naa jëllale na santaane ñëpp nañ jéggale daana wax ne day leen moytu ak tooñ tey moytoo fayu ndax kuy tooñ du mucc kuy fayu du ñoŋ waaw koo xam ne doo tooñ doo fayu ana ku la gën a bëgg jàmm kon kenn gën a ko bëgg jàmm te itam loolu la nampatal njabootam loolu la nampatal ñi aju ci moom mooy rek lu nit mën a indi yow na nga indi jàmm idfa billati hiya ahsan fa ida alladi baynaka wa baynahu adawatun ka annahu waliyun hamim

من لا moom sëriñ bi euh, fa mu mettee ak ba mu mettee dafa muñ fa ñeme jafe dafa ñeme waaye fa sant ware dafa sant mësta teggi tànkam mësta yox yoxi mësta dëpp bi ko yàlla jeexalee nag mu ne nag coono bi ma doon sonn yàlla defal na ma ca loo xam ne dama koy sant ba faw waaye sama làmmiñ rek rek lottu naa ci sant ko kon na ma ko ñëpp santale koo xam ne sama mbég sa mbéga nag ma ko santale fa ma jaar ak ñoom tëluma ko fàttaliku du ma toog de ko fàttaliku man sant laa tal waaye tëluma fàttaliku fa ma jaar ak ñoom shughiltu bi shukuri an tazakkuri ma qad jara bayni wa bayna al askari chagalani chukru ilahin qabila kulliyati an dicri maadin min bala kon moom lim tal mooy sant dundam gépp waxam yëpp jëfam yëpp mbiram yëpp da ko doon sant yàlla laka shukuri shukuri rabbi min muharrami li xatmi zil xijjati xatmil xurumi yow mbokk mi boo xoolee sa bopp xool fi la wër ak ñi la wër da nga sant yàlla ndax bu dee wërsëg boo xoolee rek gis koo tane bu dee ak xam aku aku aku xàmmee da nga gis ko tane bu dee am xel da nga gis koo tane bu dee pas da nga gis koo tane da nga gis koo xam ne da ngay am say cër mu mat sëkk nga gis koo xam ne mu matul danga nga gis koo xam ne itam lam gën bëgg mooy njaboot suñ borom xañ ko ko kon nit ki bu xoolee li ko wër rek day sant yàlla te xam ne sant yàlla mooy jikko yi daan yónni euh, yontu yàlla yontu yàlla nooxin yàlla mi nga wax naan duriyatu man xamal naa maa nooxin innahu kaana abdan shakura yontu yàlla noox ab santkat la woon inna ibrahima kaana ummatan qaanitan lillahi xanifan walam yaku min mushrikin shakiran li anumi kon ñu baax ñëpp dañ daan sant ab jullit nag bu ab safaan dalee ci kawam na muñ ware su amee xéewal nag dafa war a sant mbokk yi kenn ku nekk bëgg ngaa yokk te sant day tax a yokk kon nañu sax ci sant ana nu ñuy sante ci anam yu baree baree bari man ngay jàng al alquran ngir sant yàlla man ngay jàng xasida sante ko yàlla man ngay joxe ñam di ko sant yàlla man ngay jokk sa bokk di ko sant yàlla man ngay dég déglu alquran ak kasida di ko sant yàlla man ngay déglu waxtaane diine di ko sant yàlla man ngay jëfee ndigali ndigali yàlla yi ngir sante ko ko bàyyi lim la tere ngir sante ko ko kon Tuubaa ku fi ñëw am mbokk wax na ko nee na boo fexee ba farata yi la yàlla gàll su leneen looy def nga fas ci te yéen a sant sant yàlla santale sëñ Tuubaa boroomam booba yaa ngay màggal danga nga gis nag koo xam ne dikkul Tuubaa waaye màggal na ndax liñ santaane def na ko da nga koo xam ne moom màggal si na waaye màggal na dafa màggal si ba noppi màggal danga nga gis koo xam ne toog na fa mu dëkk màggalul ndax yoonam nekku ci waaye nag danga gis koo xam ne dikk na ba Tuubaa te màggalul ndax ñëw ba Touba te li ñu santaane defoo ko li tere bàyyiwoo ko booba da ñëw Touba waaye màggal si woo màggaloo màggal si woo kon nag sant lu caagee ni nit ki day fétal seet fu ko soob mu jaar fa ne damay sant waaye kii sant nag day tënku ci ndigal di jëf la ñu digle di bàyyi la tere sëriñ bi nag wooteem bi Euh, law na fépp ci àdduna wax na ne maa ngi wax ak nasaraan yi fekki leen ba ba fañ dëkk euh, leen man yàlla rek laa am wóor leen na leen wóor ne jaamub yàlla rek laa tey liggéeykatu Moustapha alayhi salaatu wa salaam inni uxaatibu nasara turra fi ardihim li maliki mutarra te yaqanu bi annani lillahi abdun xadimun li rasulillahi wa innani ma ziltu za tabarru'i min kulli man bil kufri zu tajarru'i wala udahinu zawi tanassuri inshaa man yamunnu bi tabassuri abuduhu bi diinihi lislaami muwaxidan lahu maa istislaami allahu rabbi zahiran wa batina xaytu akunu raxilan wa qaatina walmustafa wasilati ilayhi salla bi taslimin ala alayhi kon mi ngi xamal ñi doon jàkkaarloo moo ak moom ne man yàlla rek laa am yàlla laa gëm mooy sama buur Moustapha mooy sama wasila diina ji laa jàpp te du ko bàyyi luñ ma mën a teg du ma bàyyi diine lislaam ndax mooy sama diine xamoon na ne nasaraan yi day lu ne def nañ ko ngir fay leerug yàlla gi tasaaroo ci àdduna di not nit ñi di yàq waaye dañoo xamul ne yàlla lañ ko diggaa leel te yàlla mi nga xam ne moo tabax asamaan day lu añaan añaan fi ngay bàyyi asamaan dafa bëgg wax ne diine yàlla ji lu añaan añaan fi koy bàyyi te képp ku bëgg a fay leeru yàlla gi de sam xel des na leeru yàlla kenn du ko fay ci ay wax wala ay pexe laqad araada al mushrikuuna al aghbiya an yutfi'u nuura imaamil anbiya wastamlaku kulla al wa taxaw wa aktharu fiha al wa baxaw kalla sa yaclamuuna summa kalla sa yaclamuuna annahu qad jalla alam yaraw anna alladi bana sama binaauhu bi xasadin lan yuhdama safiha man araada an yutfia ma rafaahu lil fawqi rafiu sama wallahi laa yutfiu nuura allahi aadaauhu bil makri wal afwaahi kon moom loolu la seereel fekk na xadis ba waxoon na ne diine yàlla ji dana daj fépp fu bëccëg nekk ak guddi dana fa àgg yàlla du bàyyi dëkkub taax wala dëkkub kaw lu dul diina ji dana fa law dana am nag ci law googu ñu ca am sag ba faaw am ñu ci seenu sag saggi ko ba faaw yàlla sagal ca lislaam ba faaw sagg ca sagub kéefar ba faaw loolu nag mooy wooteem bii mooy liggéeyam bii ndax dafa ñëwoon rek ngir yeesal lislaam kon xadis bi la ko tax a jóg moom mooy li nga xam ne moom moo ko tax a jóg kon am ngeen jaajëf ci teew gi ngeen teew ci dëkk bi ngir sant la si sëriñ bi boroomam nee na làmmiñam da cee lot jëfam da cee lot léppam lottu ci kon nag na ko ñëpp santale yàlla ndax yàlla ñëpp xaj ci moom waay xajul ci kenn kon suñuy jëf ñun ñëpp yàlla xajoo na ko yàlla na ko nangu mbooleem lu fi jaamu muy alquran muy xasida muy lele muy jokk bokk muy déglu xasida déglu alquran muy jëfe ndigal bàyyi tere lépp lu ñu fi jëf rek te yiw tax tax yiw sàkk yiw tax yàlla na ko yàlla nangu lépp loo xam ne safaan la yàlla na ko yàlla xaj mu sori xam ngeen ne ñiy màggal si ñu bari euh, sunu borom da cee jël seen bakkan rañ li ci faatu dafa bari ñaar fukk ak nangam génn àdduna kon nag ñi nga xam ne ñoo génn àdduna ñu ngi leen di ñaanal yàlla yàlla na leen yàlla teeru ci ajanam ja gën a kawe ci barke Cheikhuna Ahmadul Khadim waaye nag ñi ngi ñaanal sëriñ bi gën fee yàgg ñi ngi ñaanal sëriñ bi mu gën a wér ñi ngi ñaanal sëriñ bi sunu borom bàyyee ko ak sagoom bàyyee ko ak xelam ba li nga xam ne lépp yéene na ko ci lislaam ji yéene ko ci yoon wi yéene ko ci réew mi sunu borom defal ko tawfiq defal ko kàttan ba mu mën koo def na ko bëggee ba day loxoom ñëpp la ko tàllal képp koy wax ashhadu an laa ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah bokkoo na la te sëriñ bi moo ko daan wax moo daan wax naan képp koy tudd ñaari baati seere yi xamal ne sa mbokka su ngeen demee ba waxtaan ba gindikoo ba xam la ngeen bokk xamal ne sa bopp kon nag moom xam na ne yéen ay bokkam te yéen boppam moo tax mu teg leen fi mu leen teg waaye yéen rafetal ngeen wala tansawul fadla baynakum ku def lu baax dañ koy wax saa su xewlee ngeen bàyyi seen yitte bàyyi seen i kër bàyyi seen i noflaay te ku ne xam na ne màggal dafa bari coono ngeen sonn ngir lan ngir yeesal bokk lislaam ngir sonn ngir lan rafetal ngir sonn ngir lan wane aw yoon wane ne njaboot gi nun kilifa yi nii ñuy doxal noonu ngeen war a doxale mooy am séq jàmm kenn ku ne jàppe sa mbokk ni nga jàppe sa bopp bu ñu ko defee rek lislaam jëm ci kanam buñ ko defee réew mi gën a naat wa nurahibu bi ashaabi assaada assufara al waafidina ila tuuba wa nashkuruhum ala al mashaqaati allati tajashamawha lil xuduuri ila hadihi al munasabati al mubaraka wa nasalu llah an yuwaffiqahum lima fihi salaahu al bilaadi wal ibaad wassalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu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 والصلاة والسلام على النبي الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين وذرياته أجمعين أما بعد فنظروا أيها الإخوان وفقنا الله وإياكم به أتمت الأكبر منهما أن عبادة الله الملك الحق يملك بالحلم والدين الذي شرف الإنسان وفضيلته التي بها فاق كثيرا من أصناف الخلق وهي سبب الفوز والنجاح وسبيل السعادة والفلاح لشريعة الحقيقة وحقيقة الشريعة ومن هذا الجنة قال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون واعلموا أن عبادة الله لها شطران شطر الانتهاء وشطر الابتداء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 والامتناع من المعاصي وهو أصعب وأشد على النفس فإن فعل الطاعات يقدر عليه كل من يريد وترك النواهي والشهوات لا يقدر عليه إلا الأقوياء المتقون ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم المهاجر من هاجر سوءا والمجاهد من جاهد نفسه وهواه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 وكفر من موته ذكره جد في صالح العمل وهرب من التصويف والكسل وزود في الدنيا وقلت رغبته فيها واشتد حرصه على الاستعداد للأخرى وبادر بالتوبة وتضاع لهم كل ما يشغل اليوم طعام واعلموا عباد الله أنكم تعصون الله بجوارحكم وهي نعمة عظيمة من الله بها عليكم وأمانة من لديكم فإن استعملتم الله في طاعته وصرفتم كل منهما لما خلقت له وقد شكرت من نعمة وحفظت من حرمة وأديت وأحسنت لله خدمة ولكم عنده جزاء الشاكرين وثواب المحسنين فانظروا كيف تحكمونها وترونها فإنها أول رهينتكم قال تعالى من سيئة فلا يستعجلون ربكم مقيمين إليه إن ربي رحيم ودود وفي الله لنا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 الله لمن حمده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

الله أكبر الله الله asalaamaaleykum.